Joga não. yoon di fii waay lu ci seen scandale du jour de ce vendredi 29 décembre 2023 dama bëgg ñu dem seetaani plateau bi ba pare ñu door a ñëwaat. door cee mën a commentaire. dafa leen nit bu taxaw di dima sosal makoy bay mu dem. on a compris li mu wax déedéet on a pas way man ma comprendre. wa mais d'accord am na wa wa waaw nank rek dañu def nank rek. dafa fogon ne. dama ne sociologue mo bind constitution na na nangu dafa juum ba paré bala nga avancer lolu nga fogon sen bi way nit ñi waa garaaw ñëpp xam nañ sax ñëpp xam nañ garaaw wa maa ngi jégul wa xam nga xam nga légui ya ma dégg man sa maintien li ma wax boy wax da ngay am ay références bibliographie il faut nga jàll nag di jox ay tur. ñi di xam li ngay wax ci leneen. voilà jeex na. li nga bëgg xam boo duggee ci Google gis ka non non defal xam nga ak bu ñuy wax histoire lu wax semaine bi passé ci plateau.

sans déconner bàyyi leen bàyyi leen seen problème yéen ñaar ngeen ko indi fii ma ñëw Abbas non je vous en prie je vous épargne ça non man ça passe non non c'est fini yéen ñaar fële lañ jëm fële waaw ñu jàll fële ci gan gi xoolal Abbas ñoo déggandoo ñoo seetaanandoo plateau bi nga xamante ne fële ca sans limite la amee xuloo bu méttee diggante ki nga xamante ne mooy Thierno ak Pa Moussa Sow di chroniqueur chaque jour dañ koy dénoncer dañuy naan ci plateau yi dañoo war a respectante ku nekk respecté sa morom Pa Moussa Sow moom nag mën nañ ni ex chroniqueur la il n'est plus chroniqueur c'est un partisan c'est un homme boo xamante ne dafa jàdd yoonam dafa wàcc yoonam c'est un homme boo xamante ne ñenn ci sénégalais yi dafa leen daal di bett li tax mu bett leen nag yow nga nekk chroniqueur pour nga nek chroniqueur il faut ñu am ben confiance ci sa intelligence am benn euh, confiance ci sa xam-xam ba tax ñu war la mëna tek ci plateau nan la li ak li la wax lan mo ci say xalaat ce qui veut dire que on a confiance en ses pensées am nañ yaakar ci xalaatam moo tax ñu tek ko say ñu waxé ñu ne chroniqueur na analyser na joxe son point de vue fii nii nag moom ak Thierno Diop ginnaaw bi ñu xulooyee ba pare Thierno Diop ni ko li ngay wax indi ci référence indi ci preuve indiwu ci preuve fan la mujj ci xeex et puis li nga xamante ne nee naa leen saa su nekk dañ koy ràññee ci plateau yi mooy que ñaari nit bu ñu jotee ci kaw plateau rek dañuy bàyyi li nga xamante ne lépp mooy lépp loo xamante ne professionnalisme la ñu dugg ci li nga xamante ne mooy vie privée les plateaux c'est pas pour les vies privées les plateaux mooy ñun li ñuy xaar wala sénégalais li ñuy xaar à ce ngeen joxe fa seen xalaat ngeen wax fa loo xamante ni sénégalais yi xamuñu ko ngeen xamal leen Pa Moussa tu as fait tous les plateaux ràññee nañ la ci sa mën liggéey ci sa pertinence ci sa wàllum liggéey mais t'as complètement changé te wàcc nga yoonu chroniqueur nekkatoo ko partisan nga gën a méngoo ko chroniqueur te genre plateau yi dem na ba énervé la présentatrice lan la leen wax génn leen ngeen xeex ci biti parce que lii c'est pas un bon exemple c'est pas du respect nee na leen bu dara sax ngeen respecté ñi ñuy seetaan et c'est très important ñi leen di seetaan di leen dooleel ba ngeen am confiance am bëgg-bëgg saa su nekkee ngeen toog ci plateau yi wax sénégalais yi dégg leen ñooñu dañ leen war a respecter ñooñu il mérite le respect total sans limite nag munoo toog ci plateau joxe sa avis sa moroom joxe avis nga ne ko lu mu wax du dëgg teguwul fenn te bu yow buñ la waxee li nga wax indi ci ay firnde ay référence amoo ko donc au final yéen ñaar yéen a yëpp nañu respecté ñi ñuy seetaan surtout loolu la femme l'a bien dit bu dul dara sa respecté leen ñi ñuy seetaan ku lay seetaan nee naa la kooku amoo fayam ki jël connexion surtout ñi nga xamante ne c'est pas des télévisions connexion ngay jënd wala nga fay sa wifi di seetaan nit ki am na yoo xamante ne ñoom mérité wuñu ñuy comporté woon noonu ñoom ñu ñuy seetaan parce que ñoom Sénégal képp koo xamante da ngay feeñ ci télé dafa am fu ñu lay benn statut bu ñu lay teg dañ lay respecté mais bu fekkee ni yow boo feeñee télé ti fee di conneries yi di def lu la saf di wax lu la saf di xuloo heure bu la neex sooraale woo ñi lay seetaan lijjanti ñu lay seetaan bu yàggee duñ la seetaan te dinañ la jéppi Pa Moussa encore une fois chroniqueur nga nekkal ci sa yoonu chroniqueur te chroniqueur waroo toog di wax loo xamante ne buñ la nee tey indi ci référence wala indi ci preuve amoo ci ay preuve munoo wax diw wax na te buñ la waxee diw boobu kan la nga ne xaw mu ko mënta ne bu ñu waxee chroniqueur teg la ci à plateau juste pour nga analyser c'est parce que am nañ confiance ci sa xam-xam bu màcc genre plateau yi chaque jour ñu dénoncé ko chaque jour ñu dénoncé débat mënta bañ a am mais na nekk ci respect bu dul dara sa ngeen respecté ki leen invité wala au moins ngeen sóoraale ñi nga xamantene ñoo jël seen temps di leen seetaan di like di commentaire ñoo ñu amuñu seen fay nee man nit du doon su doon commentaire midi 14 h di saga sax tank mom mu mun may suivre di ma saga man bëgg na parce que au moins xamna ni peut-être limay def ñor na ko bu démé ba jël xalaatam di xalaat di bind di saga c'est parce que limay def saf na ko donc ñu amuñu seen fay dañ leen respecter euh, cette dame là bien dit respecter leen ñuy pas Moussa du sa en tant que chroniqueur c'est pas joli rafetul waaw rafetul moom genre plateau yi chaque jour ñu chaque jour ñu ko ci plateau télé yi dañ koy ci internet bi dañ koy gis te ci ay responsable ay kilifa ñoo sénégalais dañ leen wóolu di leen di déglu def malheureusement. dafa mel ni loolu buzz la te lay may buzz ñu naan diw ak diw ñu ngi xees ci plateau bi diw ak diw kuloo nañ ci plateau bi man buzz boobu bugguma ko j'aime pas te Pape Moussa nit yi dañ la respecté bu baax a baax parce que da nga daan def ay analyse yu pertinente di joxe sa xalaat te saa yow masaana wax kenn du ko teggi mais léegi dangaa jóge ci loolu dugg ci beneen domaine xaw ma nag nu fa demee noonu mais ki ñu daan seetaan Pa bi ñu xamoon ak bii toog tey di wax bokkul